auzu billahi mina bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahil azim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ñoo ngi delsi ci ndimbalu sama borom subhanahu wa taala yëg am ci moom ak ndigal lu am ci moom jëm ci jàmm yàlla yi suñu borom waaw lii am nag fi ñu toll alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin lañ ci wax ginnaaw bañ julee ci yàlla bañ ginnaaw bañ sante yàlla jul ci yonent bi sa taala wa sallam di gërëm sëriñ Tuubaa Cheikh Oumar Khadim di koy jaare ci nga xam ne moo fi nekkal lu Cheikh Muntaxa al Bachir mu wàcc ci nga xam ne nii mboolem ku mbokkul umma islami bi yëpp ak jàmm yàlla yëpp sunu nuyoo wàcc ci ñoom li nga xam ne moo am nag jàmm rekk la ndax yëngu-yëngu yi ci réew mi dañ ma ci musula dañ ma ci wax loolu woon fi ñu toll nag am naa ci ndigal ci wax ci wax ji mooy fitne ji fan yee ci ginnaaw dañoo amoon jotoon ndigal ci suñu borom ñaan ci fitne ji jóge fi ak ñàkk gi lépp boole fee jóge fi xéewali mun a wàcc nga xam ne mooy xewul yàlla yi nga xam ni moom la Serigne Touba liggéey sa borom may ko ko ba mu bëri ba mu lool bëri lool xam nga xaj jot ñëpp xaj nañ ci. te ñëpp ñëpp nekk ci xat-xat ci jamono ji àddina bi yàlla sa borom joxuñu ndigal yàlla sa borom joxuñu ndigal ñu wàcc ñaan ci def ci sarax ba lépp mën a ko ci réew mii jàmm ji delsi xewal yi wàcc ñëpp mën ko jëriñoo rawatina Touba gi ñu nekk nag la ma waxoon laay delsiwaat rek. xéewal yi ba saawaan baawaan ba nga xam ne ni faju doo fay courant doo fay ndox doo fay dogal bi nag tàbbi na ci jeexalug Macky Sall tàkk ak ñi mu ay weet yàlla sa fay na ko jël na kaaraange ndaw ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon nekkoon ci jafe-jafe yi yàlla téyel leen seen kaaraange ñoom ñëpp guddi yiñ toll nag dialogue yorul réew mi dëgg moo yor réew mi ndax dialogue dafa àndul ak dëgg lalu ci ndax ay tappale ak i fexe képp moo ci lalu lépp lu àndul ak dëgg nag loolu du dëgër réew mi liñ ko bëgg a yore muy ay tappale rek ci wàlli politiciens yi teg sonal nit ñi loolu dafa war a jeex dëgg lalu yor réew mi lii fi mag ñi liggéey buñ ko yàq te politiciens yi ñu ngi koy bëgg a yàq jot na nag yàlla sàmborom indi indi dëgg teg ñi àndul ak dëgg yàlla sàmborom jëlee leen fi suul leen ba dootuñu dégg dootoo dootoo dootoo dootoo dootoo dégg koo xam ne nii ma ngay def loo xam ni safaan di jëm ci réew mi. beneen bi ci des France gi nga xam ne moo nekk sunu ginnaaw di xambu taal bi sawara yi bu bàyyiwul ci sawara yi ci kawam la jëm ci li ci ëpp France dana tàkk kon moom jeexalagul ci réew mi France dañoo defe ne jeexal nañ ci waaye jeexalagul ci réew mi waaye nag soppin doxin bi mooy soppiku nii nga xam ne moom la daan jëlee koom-koom bi loolu day soppiku. kon bu mu xañ boppam teraanga ji ndax bu bëggee def ay fii ci réew mi dana xañ boppam teraanga ji ndax yàlla sama boppam dana wëlbati lépp ci kawam ba du ko tal te ñeneen ñoo koy mujj jëriñoo ci réew mii du mënu koo taal incha allah loolu nag message boobu lañ doon jàllale eh, ci xamal ni nag kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko yàlla tàbbal na dogalam boo xam ne dana jiite réew mi. ci juróom-benneel président Issa république la juróom-benneel bu ne Sénégal ndax faw am keneen ku fi dox ci réew mi juróomeel bi waaw waaw faw am ku fi dox moo xam intérim coup d'état lay doon moo xam président assemblée dama ni la juróom-benneel kii toog ci seizième bi seize bi bu dee nag ki ñuy woteel ci carte. mu gañe ko mooy doon juróomeel juróomeel bi xam nga li ma la juróomeel bi moom lay doon ci carte waaye juróom-benneel bi faw am ku fi dox ci diggante bi moo xam président assemblée lay doon moo xam armée lay doon takk der ndax fekkee mag yi day daw mbaa ñu rey ko ndax dellu ginnaaw wees na ci moom ndax ba ma koy wax yàgg na. te del musul dellu ginnaaw ndaw ñëpp jeexal na leen ñii dugg nañ ci géej gi rey nañ ci géej ñii dee nañ leen dir nañ def ne ñaawteef yi bëri na ci ñaawteef yooyu nag suñu borom jeexal na ko lépp nag moo koy ñooyam ñoo koy sàngoo takk der yii nañu xam ne seeni njaboot ñoo fi nekk ci biir kër lañuy génne génn biir kër yi lañuy delluwaat kon ñaawteef yi ëpp na ci ñaawteef yi nañ ko teggi bàyyi ko li ko dara général Moussa Fall ba ca suuf ku ci teggiwul sa tànk yàlla moom rocc na sa kaaraange yàgg ko yàgg yàgg Macky Sall koo àndal yàlla rocc na sa kaaraange kon nag xale yi ndaw yi ñi nga xam ne nekk nañ tënku nañ ci njub tënku ci dëgg nañ santaal yàlla ci xam ne yàlla ànd na ak ñoom. lii lal euh, élection yi randal élection yi loolu ay pexe képp la bëgg a téye nguur jeexal ba pare bëgg bëgg bëgg bàyyi nguur ga loolu moom loolu dong la mooy weer randal élection yi waaye yàlla moom lu mu jeexal mu jeex kenn mënu ci dara ku weddi da ngay xool président bi nga xam ne mooy président Alpha Condé ba mu tafee ay tappaleem ba gañe am fu mujj yàlla jëlee na ko fa ah Idriss Déby ba mu defee ay tappaleem ba toog yàlla jëlee na ko fa kon moom it yàlla ko fiy jële kon na rafetal li ci des waaye fi mu toll nii day daw mbaa ñu rey ko c'est ba mu rendre démission président assemblée toog organiser ay élection wala keneen ku mu fi def buy toogee def ay pexe lem defoon 2019 2019 dafa jeexalul woon yàlla ci bopp moo nëppul woon ci moom waaye du nga ñaayam du nga ñaayam yàlla ci boppam moo noppiwul woon ci moom 2019 mais ku ne xam ne ni gañewul waaye yàlla nag lu mu noppiwul noppiwul ci loola lii nag yàlla daa noppi ci moom ak ñooñoom ñëpp ñu mu kilifa yi nga xam ni mooy kilifa diine ak kilifa aada yi li may xaar ci ñoom mooy li yàlla li yàlla wax mooy takku ci dëgg. ànd ak dëgg lu mu métti métti métti àndal ak dëgg ndax dëgg mooy njëkk mooy mujj ndax conseil constitutionnel dégg nga li ma la wax yaakaare dëgg waaye dëgg yàllaa ko yor kaaraange yàllaa ko yor ndax lii leen taxawul bëtiku ba dindi lii nga xam ne moo nekkoon eh, décret Macky Sall bi ak ak assemblée nationale député yi la leen tax a wëlbati xamuñu ko yàlla la. waaye bu doon seeni pexe képp la pexe Macky Sall képp la dañu not askan wi valider yokkal ko yokkal ko eh, mandaam te kenn du ci mën dara ndax def nañ ko fi bataay waaye nag yàlla moo jeexal ay mbiram moo tax conseil constitutionnel wëlbatiku ndax lii jamono amoon na fi jamono Abdoulaye Wade ma ne ko bu ñu demee de mars. da nga jeexal yàlla sa njaboot yàlla sa yàlla dana jël li nga yoroon ca sa njaboot dañu leen tëj lii maa ko fi waxoon Ablaye Wade mois de mars 2012 te 2011 laa ko waxoon kon nag loolu laa waxoon ci mag Sall mii rek fanweeri weer ak juróom-benn la fi waroon def waaye dama ne ñaan ak sarax mën na ci lu ne. waaye xam na ni bañ yeggee ci fanweer weer rek juróom-benn jeexaloon na ci pale bi waaye nag ay kilifa ci taxawaat mu dolleeku te bañ cay taxawit dañoo yaakaaroon ni dana am yërmande ci askan wi waaye fekk ko ni xamoon ni lii lay lii lay mujje kon sëñ Muntaxa mi ci waxta doo du ci wax waaye nag dafa war askan wi war war mun Muntaxa waaye nag yàlla du jubal pexe war kat loolu suñ borom moo ko wax kon li ci des say bu ñoo fen jot nga xam ni jamaa beeg pétrole beek or beek amul kenn ku fi ñëw mën a ñëw ba mën koo jeexal kon ku fi ñëw rek da ngaa war a def li nga war a def pare dem sa yoon